asalaamualeykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rijal Holding SAS seen supermarché bi nga xamante ni moo jóg taxaw tem indi leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu ay produits waaw rawatina produit yu bàyyeekoo fii si sunu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ayib si askan wi ndaxte bokk na si seen ëmb seen taxawaay di joxe xëy waaw seen mbooleem gox yu fasantikoo am nañu seen champ daaru marnaan seen champ madiana seen champ daaru xudus seen champ nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si ndaamaatu bokk na si seen ëmm seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itte aussi ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fii rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 29 ak seen chandal su gënul du salaamaaleykum soxna si dama ni baa jaaxle wu déedéet jaaxle amatul fenn ginnaaw nag bi seen pur huile végétale sans cholestérol ak Seydi Binta ah mbokku yow mi jeeg yow mi jongama sa biir kër dama ni soo bëggi poñe sa jëkkër secret baa ngi nii de kër gi neex loolu demal nag wuti huile Binta moo baax loolu si waañ bi mooy tax mu am appétit waaye huile bi nag mbokk moo baax si wér-gu-yaram huile Binta mii lépp lañ ko mën toggi yàlla boo am sa ginaar boo bëggee mu ñor loolu nag saf utiliser huile Binta waaye nag ceeb moom moo ko tax a jóg da ba mu togg ataaya ak bépp pat buy utiliser dawlin moo ko tax a jóg yéen ñi am xew yu mag yi bu ngeen si bëggee quantité ak si ngeen waaye nag bu ngeen yoree restaurant wala sax kër gi saa su nekk ne naa la huile binta mooy sa compagne bi gën a gaaw ndax da ngay togg mu saf mu neex ñëpp suur waaye nag boole kook nag tamit day sàmm seen wér-gu-yaram dama ni mbokk mi jaaxle jeex na bi seen dawlin binta pur loolu sell te set ak seef bu ngeen ci bëgg mbokk yi mën ngeen gaaw woote si 77 135 13 13 huile binta la bonne cuisine notre credo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 di leen dalal jàmm fii ci seen seen Rafah TV seen ngeen di ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel Ndiaye seen émission bi ngeen baaxoo am semaine bu ne muy sawtul xaq kàddu dëgg di ndokkeel mbokk jullit yëpp ci weer wi ñu nekk muy weeru tabaski di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajee ngërëmam am ci lépp loo xamee ni moom la ñu ah, sàkku ci bis bi yàlla nangu ñaani jéggal ñu bàkkaar yi yokk sutura si defar xéewal gi te barkeel njaboot gi waaye nañ bañ a fàtte rekk di góorgóorlu bu baax a baax ci weer wi mooy fukki fan yi ci jaamu yàlla yi ak woor yi ak eh, julli yi ku ko man fukki fan yi na ko woor ku ko mënut nga dàq juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba bisu arafa ak bu ñëwee suba la tey góorgóorlu ci sikkar yi ak it maanaam jàng alquran tey jéggalu yàlla bu baax a baax mbokk yi suñu waxtaanu tey dañ ci ñëw rek am lu ñu jukkee ci dunduk koo xam ne bu ñu waxee weeru tabaski xel yépp ci moom lay dem mooy suñu maam Ibrahima alayhi salaam suñu maam Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ni yàlla suñu boroom da koo def muy référence mu ni monument la ci référence ci képp koo xamee ni ab yonent nga waaye képp koo xamee ni yaa ngi tuddoo ne diine ngay wooteel maanaam da ngay woo nit ñi di leen jubale jëme leen ci yàlla mbokk yi li tax ñu tànn suñu maam Ibrahima ak yi bëgg a jukki ci moom lenn ci dundam mooy jamono ji dafa mel ni suñ ko sañee wax ñi nga xam ni dañuy duppoo ay ustaas wala ñi nga xamee ni yenn saa yi dañuy duppoo ay sëriñ dafa mel ni dañuy jaxasook nitu àddina yi jaxasoogu jéggi dayoo ba yenn saa yi sax dañuy mel ni dañuy tiitaroo wala dañuy wanewu ne ñoom ay xarit lañ sañ nañ maanaam ñoom ñi nga xamee ni ay ustaas lañ wala nitu diina yi lañ maanaam jaxasoo gi ñu jaxasoog nitu àddina yi moo xam ay waykat lañ wala ay mbandkat lañ ay fecckat lañ wala ay taaxuraankat daa mel ni dañuy xaw a yenn saa yi di tiitaroo jaxasoo gi jaxasoo ñoom di wax ni mën nañ leen a defal mën nañ leen a wax ñu bàyyi mën nañ leen a wax ñu def mu mel ni nag dafa mel ni ndox ak euh, ndox ak caas la wala euh, sawara ak caas la ñax aku sawara ñax bu wow ak sawara faw am boo xamante nii dafay lakk morom ci mënuñoo ànd yit wala boog mënuñoo ànd àndub ne ay xarit lañ wala ay nangam bu ko defee ci loolu dañuy jukki tuuti ci dundub suñu maam Ibrahima ci xew-xew bu xewoon diggante moom ak waajuramu góor borom bi tabaraka wa taala di fàttali yonent bi loolu le ne ko del fàttali sunu maam Ibrahima xeet wi te di ko fàttali sa bopp ndax sax dama laa digal nga topp sa maam Ibrahima ne ko fàttalikul keroog ba suñu maam Ibrahima alayhi salaam yëgee ne baayam bii kat lii muy jaamu du yàlla waaye yoon wii mu tegu nekkul yoon wu njub lu mu def ndax dafa jóg wax ni kii sama baay la naa def médiation ndax dafa wax ni kii sama baay la naa def ay relation maslaa ak moom ba duma ko wax lan mooy dëgg ji laa dafa jàkkaarloog moom woo ko ci yoonu yàlla ci anam gu rafet te jekk ci jekk ak ne ko yow sama baay lan moo tax ngay jaamu loo xam ne du dégg du gis mënulaa jariñ addina mënulaa jariñ àllaaxira yow sama baay moytu la topp seytaane ak aw yoonam ak i gaayam c'est très important la taabudi seytaan bul jaamu seytaane mooy moytu seytaane ci jëmmi boppam waaye moytu ko topp moytu la topp kuy topp seytaane wala ku koy liggéeyal ndax inna cheytaana kaana lirrahmani asiya seytaane dafa dëkk yàlla mooy ko féttéerlu te ku dëkk yàlla féttéerlu mooy ko fawwu nga mos ab yaram kon sama baay maa ngi lay mooy tondikuloo lii dem ba ci biir baayam wax ko ne ko ndax danga bëgg a wax ni man li ma juddoo màgg ci ba màggatee ci du dëgg ndax danga ma bëgg a wax ni lii may am sama teraanga lii nga xam ni ci laa fondé sama dund da ngaa bëgg wax ni du dëgg ne ko bàyyil lii nga may woo bàyyil li ngay li nga may teg maanaam li nga xam ni moom nga ma bëgg a teg ba ko wa illa danaa dogu sama diggante ak yow mooy danaa la dagg wacc sànni waaye suñu maam Ibrahima alayhi salaam woote borom bi ak nit ku jub da koo jaral lu ne loolu tax mu bàyyi baayam maanaam gannaaw bi nga xamante ni tey baayam sàkku na ci moom ne ko léegi dama bëgg léegi ñu def séparation de corps féeteel na le ma féete ne le suñ maam Ibrahima jari jaral na ko waaye du def médiation mukk ci gis loo xam ne xam na ni lii day lu leer naññ la ay caaxaan la mu di ci def médiation pour bëgg a toog ak nit wala pour bëgg a jubale ay nit abadan parce que inna ibrahima umma kaana umma innahu kaana siddiqan dafa dëgg woon kon li ñu mën a jukkee ci dunduk suñu maam Ibrahima ci aayaat yu gàtt yi ñu mën koo tënk mooy gis nga képp koo xam ni yaa ngi wuyoo ab oustaz ne dangay woo nit ñi di leen yee jëme leen ci yoonu yàlla mbaa ngay woote woo ab sëriñ wala ab jàngalekat wala sëriñ daara war ngaa roy ci sunu maam Ibrahima ci lii mooy lan koo xam ni gis nga ko mu tegu ciw yoon na doon saw xarit koo xam ni gis nga ni teguwut ci yoon woo ko ci yoon yàlla bu fekkee tëna bu fekkee tëna loolu ñuy tuddee séparation des corps na ko def mooy lan wëreesu laa gis di ko gis ñuy naatable ne wala ñuy gam-gamle ne yow ab xarit nga ci moom abadan loolu mënta nekk loolu warta mën a am jaaduwut jëkkoot loolu kon képp da koo war a roy kuy ustaaz wala kuy ab sëriñ war ngaa roy loolu ci suñu maam Ibrahima alayhi salaam waaye mbokk yi li ñu gis léegi dafa mel ni daf ñoo jaaxal moom laa doon wax sànq mooy dafa mel ni yenn saa yi dafa am ñenn ci ustaaz yi lenn ci seriñ yi ñoo xam ne xaritoo ab waykat wala ab fecckat wala mbandkat dafa mel ni loolu tiitër la ci moom dafa mel ni loolu succès la ci ñoom. su ma ko waxee mu bàyyi su ma ko digalee mu def dafa mel ni loolu dafa mujj nekk succès ci ñi nga xamee ni ñoom ñooy ñi ñuy tuddee oustaz wala ñi ñuy tuddee sëriñ te ma wax ni dafa mel ni ñaar yooyu soree nañ ñi penkook sowwu waxum bëgguma wax ne ñi ñuy tuddee waykat kenn warut a jaxasoog ñoom bal dañoo war a fekk si ñoom di leen woo di leen di leen naab fexe ba ñu dellu si ci aw yoon ndax lu ñu mën di wax nekkuñ ci yoon wu baax loolu faw ñu am maanaam fitu jàkkaarlook ñoom wax leen ko yoon wi ngeen nekk du yoon wu baax mas naa dégg Wally sekk ci benn interview boo xam ne moo ko moo ko dolaloon ci benn télé mu wax ne kàddu yi ma wax la wax bu ma juumal mu wax ne nañu waxante dëgg ñun woykat yi zaahir si ñu nekk baaxul nekkul lu gënal yàlla yaakaar naa boobu bu ma juumal ñi ngi nekk ci début corona bi maanaam corona bi muy doog a tàmbali boobu la woon moo wax bay jooy segam ñoom ci seen jëmmi bopp yaakaar naa bu ma juumut it am na benn waykat bu ma soon a jàkkaarloog borom xam-xam ne ko damaa bëgg nga wax ma tey ba xam ñun lii ñuy def araam na wala araamul ndeysaan borom xam-xam ba di nakk-nakkal segam ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo dem bay dute ba xam li ñu nekk baax naam baaxul am ci ñoom ñoo xam ne dañoo leeral ni ñoom li ñu nekk ay caaxaan la mais yow bi nga xam ni dangay woon nit ñi ci yoonu yàlla mu nan nga mën a taxaw tiitaroo ni yow kii sama xarit la te moom te yow moom wax na ni man li ma nekk baaxul kon il fallait que ñu xoolaat bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy tuddee oustaz wala ñuy duppoo sëriñ war na ñoo xoolaat seen bopp xew-xew bii mujjee xew tey muy diggante oustaz Makhtar ak nguur soosoo nga xamee ni dafa mel ni diggante dëgg ju leer naññ la ju feete bu bu féete ci oustaz Makhtar Sarr ak ay caaxaan yu leer nañ yu féete ci nguur soosu dama yaakaar ni kay bu fekkoon la nga xam ni moo waroon a am mooy oustaz Makhtar Sarr nii moo waroon a ànd ak gàngooram ak mbooleem koo xam ne oustaz nga porte plainte nguur sii nga xam ne ne dafa nar a yàq jikko yi léegi nag safaan bi xew ndax àddina moom léegi moom lépp dafa jóono dama yaakaar ni kay koo xamee ni yow yaa ngi doon duppoo ab oustaz wala nga duppoo ab jàngalekat wala ngay woo nit ñi ci yoonu yàlla waroon te bëgg jàmm te ak bëgg ñor la xanaa dama yaakaar ni danga waroon a dem ne ha oustaz Makhtar Sarr day moo nekk ci dëgg moom lañu ñu àndal ndax moom kat mooy woote li nga xam ni day defar jikko yi. moom moo waroon a porter plainte ñu far ko porter plainte segam loolu dem na nag ñun moom la ñu àndal bu ko defee bu fekkee loolu am na nag bu jëree ñu dem ca ngóor ne ko yow sa waay fii nga jaar du yoon wa bu fekkee yow da ngay woote woo ne yow am nga moom relation soo ko waxee mu def soo ko teree mu bàyyi bu fekkee loolu ngay woote woo tamit dëgg te loolu moom ngay bëgg a woote woo te it nekk koo xam ne da ngay woo nit ñi ci yoonu yàlla waaye xayti kii ak caaxaan gu leer la demal ci moom ne ko bàyyi li ngay def waaye dama yaakaar ni doo jékki-jékki dugg ci suufi taabal ne man dinaa def lu ma man daal di dugg def médiation xëy suba ne waaw yàlla wis na ci ndox mu sedd daal ne man ko mun karan ko gis lu ñu sib waa léegi ana lan mooy lu ñu sib xanaa dama yaakaar ni li bon kay nekkul ne maanaam li bon moom mooy Maxtaar Sarr ñu porté ko plainte loolu mooy li bon waaye nekkul li li bon it mooy maanaam kuy def jëf ju bon bañ jàpp la loxo ci poos waroon laa porter plainte yow nga wëlbati ku osé di porte plainte loolu mooy li bon waaye du caagi ne da ngaa war a dox diggante di jubale ak ya ca aju kon dafa aajawoo képp koo xamee ni yaa ngi taxaw ci écran képp koo xam ni yaa ngi jàngale képp koo xamee ni sëriñ nga nga xamee ni da ngaa wax ni da ngay woo nit ñi di leen jëme ci yàlla nga xamee ni yow yaa représenté ab yonent ci kaw suuf al ulama warasatul anbiya war ngaa am jukkoy dëggu jukkoy dëggu mooy lan mooy fexe ba boo gisee foo xamee ni lii du dëgg nga am odaasu jàkkaarloo ka nga xamee ni moo def lu du dëgg jàpp ci loo xam ne ko yow lii ngay def du dëgg te it ki nga xamee ne xamee nañ ko ak caaxaan moytul mu di la dugal ci caaxaan yooyu moytul mu di la digal ci caaxaan yooyu ak kooku comme man ci doon ndax man mënumaa concevoir mënumaa nangu koo xamee ni nee nañ ab oustaz la wala ab sëriñ la ne ne ne yaay dafay xaritoog ab ab ab ab waykat koo xamee ni ñëpp xam nañ ni yàq yàq rek lay def loolu mbokk yi ñaar yi dañoo ànd sax mi ngi mel ni nga bëgg a jaxase xorom ak suukar ñoom ñaar bokk na wala nga bëgg a jaxase kaani ak suukar bokkuñu sax bokkuñu kon que ñi ngi ci weeru tabaski suñu maam Ibrahima yàlla suñu borom joxoñ ñu ko ñun ñëpp rawatina képp koo xamee ni yaa ngi woo nit ñi ci yoonu yàlla ah nañu jàngaat ci moom ay leçon jàngaat ci moom leçon yi la ci jiitu moom mooy nañu roy ci moom ak dëggu woote gi nga xam ni moom lañuy wooteel yàlla buñ ko wooteel yàlla ngir lan ab succès wala ñu koy wooteel yàlla ngir lan buzz wala ñuy wooteel yàlla ngeen lan diw de def na fi nangam moo fi def lu kenn deful wala moo fi man lu kenn mënul ndax yenn saa yi dana am jëf yoo xam ne doo ko qualifié lu dul loolu bërki dem maa ngi seetaan benn oustaz lu garaaw maanaam du ma wax mi ngi mi ngi mi ngi ànd benn xale bu jigéen bu ko interview mu jékki na ko waaye gis nga sama ñaari jaaro yi mu ne ko nag xam nga ni lislaam da ko tere mu ko mu ne ko man dama koy def mu ne ko ndax xam nga fan laa ko teg mu ne ko déedéet mu ne ko fii laa ko teg sama bakkan en tant que oustaz yow nga taxaw nangu ni ñu yàlla da ko xaraamal ci kanamu ay téeméeri junni nit ñu lay seetaan nga ni man dama ko teg sama bakkan wala yow bu ëllëgee bu fekkee wax nga dara waaye ñi ngay waxal ñoom lan lañ koy jàppee nan maanaam lan lañ war a jàpp est ce que yow ñooñu duñ dem ba mujj yàgg ne ah oustaz bi de kon lépp lum ñu mas a wax ci bakkanam la ko teg seegam yow am fitu defiyee yàlla yow nde lii da koo xaraamal sama bakkan yow koy noppil yow def nga loo xam ne xam nga ni lii yow ci yow te sax maanaam donte masala boobu masala xilaaf la maanaam masala bu ñu wuute la ci borom xam-xam yi waaye yow dem nga ba saxal ne yow sam njàng lim la may mooy lii dafa xaraam waaye noppil ta taxaw ci kanamu seen ne man dama sincère man dama simple yow naka ngay wane si simplicité mooy man damaa def lu xaraam léegi boo defee lu xaraam damay taxaw ci kanamu nit ñëpp ne leen man def naa lu xaraam te sama kan laa ko teg <laughs> kon dama yaakaar ni kuy digle cangaay dafa war a fekk nga seet ba noppi yow bi nga xamante ne liñ naan ida dalla al aalimu dalla al aalam gis nga boroom xam-xam buy woo nit ñi di leen teg ci yoon moom bu demee bay def bu demee ba xam ni man def naa lu dul yoon it war naa fexe ba nëbb ko ndax moom bu fekkee def na njuumte njuumte loolu ñëpp teg ci bët loolu mooy ñu bare bare bari dañuy def yow ndax dañ naan segam oustaz bi moo koy def kon ñun buñ ko defee amul benn jaf jafe kon mbokk yi li ma bëgg a wax ci tënk daal mooy ñiy tuddoowoo oustaz ak ñiy tuddoowoo sëriñ nañ moytu di jaxasoog ñi nga xamee ne dañuy yàq la def ndax bu fekkee man damay tuddoo ustaaz wala sëriñ li may jublu moom mooy defar xale yi defar seen jukko kii nga xamee ni ab mbandkat la kii nga xamee ni moom fecckat la yàqkat la waaye sëñ bi naka laay mën a xarit xaritoog moom xanaa dama yaakaar ni kay ab maçon moom kay raax la war a mën a xaritool waaye ab màbbukat du xaritoog moom kon mbokk yi nañu xoolaat bu baax a baax jëf yi teg lenn lu ci ne fa war a tegu ñu tegu ñu teg ko fa te yenn contradictoire ñu ngi jéggalu bu baax a baax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah shukran lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon asalaamualeykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rijal Holding SAS seen supermarché bii nga xamante ni moo jóg taxaw tem indi leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu ay produits waaw rawatina produit yu bàyyeekoo fii si sunu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ay ayib si askan wi ndaxte bokk na si seen ëmb seen taxawaay di joxe xëy waaw seen mboolem gox yu fasantikoo am nañu seen champ daaru marnaan seen champ madiana seen champ daaru xudus seen champ nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si ndaamaatu bokk na si seen ëmm seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itte aussi ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fii rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 ak seen chandal su gënul du yees asalaamaaleykum soxna si dama ni baa jaaxle wu déedéet jaaxle amatul fenn ginnaaw nag bi seen pur huile végétale sans cholestérol ak si di binta ah mbokku yow mi jekk yow mi jongama sa biir kër dama ni soo bëggi poñe sa jëkkër secret baa ngi nii de kër gi neex loolu demal nag wuti huile binta moo baax loolu si waañ wi mooy tax mu am appétit waaye huile bi nag mbokk moo baax si wér-gu-yaram huile binta mii lépp lañ ko mën toggi yàlla boo am sa ginaar boo bëggee mu ñor loolu nag saf utiliser huile binta waaye nag ceeb moom moo ko tax a jóg da ba mu togg Nivea ak bépp pat buy utiliser dawlin moo ko tax a jóg yéen am xew yu mag yi bu ngeen si bëggee quantité ak si ngeen waaye nag bu ngeen yoree restaurant wala sax kër gi saa su nekk nee naa la huile binta mooy sa compagne bi gën a gaaw ndax da ngay togg mu saf mu neex ñëpp suur waaye nag boole kook nag tamit day sàmm seen wér-gu-yaram dama ni mbokk mi jaaxle jeex na bi seen dawlin binta pur loolu sell te set ak seef bu ngeen ci bëgg mbokk yi mën ngeen gaaw woote si 77 135 13 13 huile binta la bonne cuisine notre credo